bismillah ñu ñëw ci njàngalem sëriñ tuuba ku ñuy wax ibra fati guray radiallahu taala anu mas naa ñëw fi sëriñ tuuba xaada lahu law maxtaar lahu fekk fa kenn ci mag ñi mu jox ko hadiyaam ni ko joxeel ma lii doomi ablaay njaay radiallahu taala anu sëriñ tuuba xaada lahu law maxtaar lahu ni ko moom laa doon doye mahit daa di yóotu baaraamu mahit ak baaraamam téye ni taawanu alal birri wa taqwa na ngeen ànd tey dimbalante am na ku mas a jébbali ci sëriñ tuuba xaada laho law maxtaar laho ni ko dama bëggoon a tër bi yow sëriñ bi ni ko ku nekk fa sa baay mu ni ko man mi ma fa nekk ak taalube yu ndaw ya sëriñ bi ni ko soppil nañu la ko ci sa baay lo waroon a am fii dana la fekk foofa wér na am na ku doon defaraat néegub sëriñ tuuba xaada laho law maxtaar laho sëriñ bi fekk ko fa ni ko génnal mu génn ne tuut mu woo ko ni ko xam nga lu tax ma ni la génnal néeg bi yàlla mi bind lépp ak ki ko gënal ci li mu bind ak sayyiduna jibrilu alayhi salaamu ñett ñooñu ñoo fi nekk ak man moo tax ma ni la génnal xajoo fi wér na sëriñ bi waxtu wu nekk day taqoog sayyiduna jibril alayhi salaam ak yonante bi sallallahu taala alayhi alihi wa ni mu ko ni mu ni mu ko binde ci xasiidaam yu bari waaye léeg-léeg dañuy ànd ak moom ànd goo xam ni du mën a ànd ak kenn wala lenn ndax fi mu ne bi mu ko woowaatee teewul ñoo ñii ñi ngi ànd ak moom ba tey waaye melaw ànd gi moo soppiku ba tey danañu jàng ci lii ni lépp looy defal sab sëriñ lu mu baax baax war nga cee am digal mooy tax bu ca lor nekkee du la lor aalam sëriñ xaada maxtaar bi mu joxee maam ceerno radiallahu taala anhu wirdu al musabbaatul hasra dani ko kooko jox texe na te dootul texee di siiw na sëriñ tuuba xaada lawo ma numbe bi ma fa ko sunu borom bindal miram dama fekk bind bindaaliwu ko faak lu tol ni fépp wërsëg maa ko far bind fa laneen siiw na xasiidak min al xaqi ja al xaq bi ko sëriñ tuuba xaada lawo law maxtaar wax ñu wékku ko fa buntu kër ku ko gis texe werna na lool sëriñ isaa jeen taala hanhu mas sakku ci serigne touba xaadal la law maxtaar la defal ko negub tabax serigne min ko isaa ndax loolu xañ na ci aduna demal nand defal ma ko fa ngir seyene dana ko seet bu noppé siwna na wax nañu bi mu noppé fekk na serigne bi laqku waaye seet nako niko mala ni ko la ko seet te man lu ma wax def ko wala alam سرين توبا خاد الله لو مختالو مسنا وخ سرين محمد مصطفى رضي الله تعالى عنه لو متى دف دف ناكو لما لين دي ديغل موي اند تي جاري نانت سيونا ملنا لي تاخ مو واخ كوكو دا ام طالبيم بو فاتو مو بغون اي باركيلو يمي اندال بو نيكوي سول ولا ولا ولا اعلم su ko defee dimbulante mooy ngay seet ke nga àndal li mu mënta ñàkk te mënalu ko boppam wala dana ko jafe nga di ko ko defal moomin muy def noonu loolu mooy jariñante ba tey taawanoo xalal birri wa wala walaaw alam sëriñ tuuba xaadalahoo laaw maxtaaloo mas naa wax sëriñ moor pend radiallahu taala anhu dama bëgg ngeen góorgóorlu te fexe ba bu ñu demee yowmal xiyaam bu ma dara tax a jug daa di ni ana luy dara jay mbër kenn waxul dara sëriñ tuuba xaadalahoo laaw maxtaaloo ni ku nekk na ma wax la mu ca xam am ca ko wax ni weesuwul ku ñu ko mën a jiina leel mu daan ko jiin xëy na mooy tëkkale te kenn mënu koo daan sëriñ mi ni ko loolu darajay mbër la waaye am na ju ko ëpp xam ngeen ju ko ëpp ñu ni ko dee sëriñ bi ni mooy mbër moo xam ni mbër mu ñu ko mën a jiina leel nga xam ni bu daanee wub ma wub mooy tëj làmb ja bu làmb ja beralee mbër moomee mu yebal ay suuru mbëreem ñu dikk daan mbër moomee ca biir géew ba ay suuru ni mu taxawe fii day nuru mbër yu ndaw loolu mooy darajay mbër wér na daa mel ni li mu bëgg a xamle mooy li mu wax ci tàmbali bi te mooy nuy fexe ba di ko dimbale ca ramuma bu ëllëgee walaw alam ñu ñëw ci njàngaleem sëriñ tuuba juróom ñeen fukk bi ak juróom ñaar sëriñ mahmoudan ture radiallahu taala anhu mas naa jox sëriñ tuuba xaada lahu law maxtaar lahu ak mbubbu sëriñ bi teg ko fi kanamam am góor gu rafle gu fa nekkoon sëriñ tuuba xaadalaw law maxtaloo ni ko faal muy jëlal mbubb mi jox ko ko kii mu barkeeloo ko ba mu ko joxee mu daal koy sol sëriñ bi ni bismillah gis ngeen ko kat xiif ak rafle kat amulub gent daal di def tekk ab ni bismillah loolu nu wax kat bu doon du nu ko wax ndax ndaw agsi na fi léegi ni ma sa boroom nee na loo bëggul mu amati bu ko tudd te tudd naa lool ba noppi wér na sëriñ tuuba xaadalawu la maxtaarloo mas naa wax sëriñ ma njëmbu silla radiallahu taala anhu loolu yi seen boroom di wax ci alxuraan wa ma tawfiqe ila billah xam ngeen lu mu ci jubloo mu ni ko déedéet sëriñ bi ni ko mooy man ak yéen loolu mu dellu waxit ni alhamdulilahi allasi hadeena li mel ni am lu muy joxañ li xaasaaji xam ngeen ku mu ci jubloo mu ni ko déedéet sëriñ tuuba xaada lawo law maxtaar loxo ni ko mooy man daa ni bar yooyu na ngeen koy farala wax ngir man am ku sëriñ tuuba xaada lawo law maxtaar loxo wax mamadu sappi si sa baay daan toog te mu sës ci man bi mu fi duma dégg ngir suuf wax gi muy wax dama bëgg a dem ca madun penda radiallahu taala anu lalal foofee sakaala tibb ko yóbbu fa barabam boo demee nga gas fa tolloog dënd ba sotti ko fa booba ba tey du ma dégg ndax nee nañu dañuy dem fekk madun penda ñoo waxoon dañuy dem dani dañuy dem fekki madun penda radiallahu taala anhu wa in min cheyin illa yusabbihu bi amdih walakin laa tafqahuuna tasbiyahum innahu kaana aliman xafuura yàlla lum bind lu ne day sàbbaal ak di sant yàlla waaye nag ñi amut gis-gisu xol duñ mën a dégg loola ba koy xam fa ma bakkat alayhimu samaa wal ardu kaanu munsariin am na mbindeef yooyu bu génnoon àdduna suuf ak asamaan du leen jooy waaye ñii bokkuñu ci ndax ñi moom tabbukil araadi alayhim kas samaawaati juróom-ñaari asamaan yeeg juróom-ñaari suuf yépp maanaam dañ leen di jooy walaaw alam sëriñ tuuba xaada lawo law maxtaar lawo nee na bu ñu demee ba ca kanam te gisatu leen ma te ngeen di ma wut te bëgg maa gis xam ngeen fu ngeen may wutee ñu ni ko déedéet sëriñ tuuba xaada lawo laahu maxtaar lawo ni wut leen ma ci xasiday yi wér na fa man araadal xurba min mawlaahu falyaqra il qur'ana la yansaw alquran waxi yàlla moo tax sëriñ bi ni ku koy jang da ngay jige yàlla subhanahu wa taala ka noonu ay xasidaam ku leen di jàng dalee jige lool ba man di wax ak yow su ko defee war nañoo xam ni dara soriwul bo jaaree ci yoon wa walaw alam ñu ñëw ci njànganam sëriñ tuuba téeméer bi ak benn amna ko ku mësa andil serigne touba xaada lahoo law maxtaara lahu ay tere bay dem serigne bi ni ko mor mokal nga jalibatul marahib mu ni ko daanaa ko yër de sëriñ bi ni ko yeggal suuf fi ma diglu lako mu tambule tari mu koy diglu ba ca kun li bi jahi rasulillahi malikuna serigne touba xaada lahoo law maxtaar lahu ni ko maalika joxañ baaraam ba ginnaaw lii téere bu mu andeeti sëriñ bi ni ko jàng ko bala ngaa dem am na ku doomam ju ndaw faatu mu ñëw ci sëriñ tuuba xaada lahoo laahu maxtaara lahoo sëriñ bi ni ko moor loo doon dox mu ni ko man saa doom daa wopp ba faatu te bëgguma mu dem ca sëg ya muy armeer ya wala xabru ya sëriñ bi mu muuñ ni ko moor ku la ni man na maa dekkal ko faatu mu ni ko mbàkke kenn waxuma ko dama xam ni man nga ko sëriñ bi ni dënn ba mu yàgg mu ni ko jox ma piire mu jox ko ko bool xëy na wala peere mu jox ko ko sëriñ bi raxas ci ab tànkam jox ko ni ko boo demee jox ko ko ba mu demee nas tuut sëriñ tuuba xaada lawo law maxtar lawo yónni ndaw ni ko soo demee neel moor faasa kookoy mu ni woon bëggul mu dem ca sëg ya nu mu def mu ni ko maa ngi ci am yaakaar de bis bi sëriñ bi yabal na fa ñetti ndaw bi mu ñëwee ci sëriñ tuuba xaada lahoo law maxtaar lahoo di ko sant sëriñ tuuba xaada lahoo law maxtaar lahoo ni ko bu feree jox ko soxna kebe radiallahu taala hanu moo daan fóotal sëriñ bi lu bari mu jàngal ko balaa mata dem kër mu ni ko jërëjëf ndeem dana dem kër wér na lool ki faatu woon soxna faati saasa la tuddoon radiyallahu taala anha walaw alam sëriñ tuuba xaada lahu law maxtaaloo nee na ku am mbokk na ko wax ni jébbalul bu nanguwul na jàpp ci loxom ni ko jébbalul wér na sëriñ tuuba xaada lahu law bi muy laaj ñaar fukk ak juróom ñett da ko appalon fukki fan ak juróom am ñoo xam ni amuñu ko te duñu ko mana am ci diggante boobu yi ba tax bi ko maam Ceerno radiyallahu taala anu xamee ñëw njaareem leeral ko ko bëgg sëriñ bi yokk ko sëriñ bi nu ko fa ma ko jëlee daa neexu la dellu muy wax ba mujj sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaarlawo ni ko defal nañu leen ko weer weer na ñu ñëw ci njàngalem sëriñ Tuubaa téeméer bi ak juróom sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaarlawo bi muy laaj lim boobu daawul nangu ku joxe laneen lu dul xaalis daana wax dem leen delloo ko waxuma loolu lim boobu ma wax la bëgg bopp bu nekk joxe ko góor ak jigéen du hadiya du sarax du asaka du muurum koor seen jotug bakkan la jot mooy lu lay tere tàbbi sawara walaw alam ñu ñëw ci njàngalem sëriñ tuuba bu téeméer bi ak juróom benn wax nanu ñi amna lu doxone digeunte serigne touba khada lahu law makhtar lahu ak serigne as kamara radiallahu taala anu. ci lu mu ko warona a jox ci dénkaane bo xam ni ak kilifa moo ko ko ngir mu jox ko ko ba mu ko ko joxe itam laaj na ko ci xaalis lu bari touba khada lahu law makhtar lahu wax cheikh ibrahim fall mu ñew ndar bu liggéeyee lim boobu mu jox ko ko doora demaat faneen wér na su ko defee loolu mooy li ñu mën a bind ñépp xam ko teewul ku xam cosaanul wax ji da nga mën a xam leneen lu gën a bari walaw alam sëriñ tuubaa xaadalawo law maxtaaloo nee na jox naa leen ilmal awalina axirin mooy xam-xamu njëkk ña ak ñu mujj ña siiw na lii li tax ma andi ko nii daa am beneen nettali bu ma andi woon te amu ca waaye ñoo ànd te mooy batambulee duma sëriñ si duñu man wallahu alam